bari si nu mu gën a yaatu mbokk téléspectateurs yi di leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar rafet lu animé nañu ñun sa nekk kak suñu programme donc dalal ci na jàmm nag seen émission li nga xam ne moo di le truc de maintenant nous sommes en direct euh, sur Sénégal 5 TV mais aussi Sénégal 5com partager com mais aussi parvenir le live yi nga xam ne itam ñoo war a jotagul fa seen daal ànd ñun euh, si biir li nga xam nekk moo di jotaay si nu mu gën a exactement alors mbokk sa yi te suñu éponge si na gën a fës bokk na lu daal ñeel si li nga xam nekk moo di euh, conseil di ministre man ni di nañ ko daal di tenir foofu daanaka eh, palais eh, présidentiel jàppe ni itam mu daal di ko fukkeel bi yon ak li nga xamné ne que moo ñaar bi manam 12e conseil eh, des ministres ni daal di xaaraat li nga xamné ne que moo di ces grosses décisions yi nga xamni tam itam ji Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu koy dadi amal fu nu mel way tam ni dadi di xaar ni dans quelques instants inshallah le communiqué bi nga xamni tam da fay dadi jógee ci Moustapha Ndiak Saxe da si ñëwaat si nu mu gën concrètement dina dadi ni tam par rapport ak li nga xamné ne que moo di ces grosses décisions d'Ousmane Sonko dem na dona dadi rencontré les nga xam justement les commerçants de Colobane foofu dans doon ko primature den daal aussi si DPG euh, politique générale bu Ousmane Sonko dem aussi gis neen ki nga xam Modi moo di déclenche di euh, exactement le réveil euh, de l'opposition opposition ma ni kon nag moom opposition par rapport à la déclaration politique générale bu ki n'a xam Modi Ousmane Sonko daal di toftal aussi Abdou Mbow Abdou aussi relance yi nga Tam ni def na ko allant dans sens le lépp de c'est-à-dire Yato nu mu

yalla dafa def tey euh, donc euh, mu ngi def trois mois donc euh, epsilon ce plus donc par rapport aux attentes des sénégalais ñoo xamantene ñu koy xaar donc ñu koy xaar ci dans ce sens. Mm. Mm. donc waa Régie ñu ngi signalé na micro amna, problème micro. micro bi ñëw mi ngi wala. bu ñëwee ngeen wax ñu.

ce sens euh, ci jub jubal jubanti bi mm. d'ailleurs gis nañu fi mu dooree ko donc euh, avec euh, euh, euh, euh, la réforme des institutions ce ma la réforme des institutions mooy maanaam la modernisation et, la réforme de l'institution judiciaire ba ñu des assises une assise nationale fële Diamniadio mu aussi ñu gis euh, euh, euh, les travaux yi muy stoppé ci wàllum foncier bi le littoral ainsi de suite aussi lu xewee ci kat feulé ci Thiès tout ça boko récapituler da ngay japp da ngay gis ni que euh, ak son gouvernement ñu ngi ci donc chemin bu baax bo xamante amana euh, sénégalais lool lañ doon xaar même si hmm. les doléances ba légui dafa dess parce que dégg naa nit démb muy wax ni ni que dafa dess ba légui dess na euh, mooy maanaam euh, les réformes yoo xamante ne le régime en place mu ngi koy def dans tous les secteurs les secteurs d'ailleurs aussi à la nomination de certaines personnes yoo xamante à la tête de d'autres institutions euh, euh, comme la RTS et autres, d'ailleurs, ni que il y a des réformes qui ont été en train d'être faites euh, ci côté boobu donc ñu avons nous bu baax baax donc ñu ngi koy saluer bu baax a baax ah, loolu suñu souhait mm. Sénégalais bu ne dafa souhaiter le régime là le nouveau régime pour réussir tu sais pourquoi dafa am solo il faut pas être tellement nuliste ni que man opposant la wala keneen opposant la wala keneen dafa fare ci nguur gi donc moi manam, lu waay def ñu ne noo non man je suis pas d'accord avec ça tu peux opposer ah mën nga opposer mais aussi bu ñu gisee ni que euh, euh, moom mu ngi liggéey wala mu ngi teg ay jéego yoo xamante dinañu développement il faut le dire il faut l'encourager mais aussi si boo gisee ni que peut-être li ñu def c'est pas suffisant par exemple je vais dire euh, de euh, peut-être quelqu'un qui a dit euh, je ne peux pas je ne veux pas citer son nom mm. quand il euh, bu ñu gisee keroog wàññi bu ñu wàññi dund gu gi euh, comment ceeb gi wàññi suukar bi wàññi mburu mi mais dafa ne wàññi bi baxna au moins ça je le concept dafa ne wàññi bi baxna ba légui dessna mais ba légui dessna je suis d'accord avec lui c'est vrai que nañu bi baxna mais ba mais des bu fekkee mën nañu euh, donc ci bi de première nécessité euh, on est preneur mais aussi on dit li ñuy jot a aussi baxna parce que euh, sénégalais lolu lañ doon souhaité hmm. man ces de personnes là bëgg dans ce hmm, pays hmm ay nit yi taxaw di naan li nga def ni baax na baax na mais am na ay manquement moom tamit mu andi tous euh, euh, le manquement ne boo defee lii ak lii ak lii ak lii tamit baax na donte li nga nekk di def ni c'est comme ça mais opposition dafa war a am ça aussi faut ngeen xam ko on peut pas gouverner sans une opposition Alors c'est clair. donc amana dinañ ci ñëw ci les opposants yo xamantene commencé nañu <laughs> yo sank wax nga ko hmm, cité nga tour un opposant bo xamantene organiser organiser na conférence de presse démb hmm. am na lu mu ci wax mais loolu la wax jomaay na liggéey parce que loolu moy sasam sénégalais loolu mo tax ñu fal ko que ça soit jomaay que ça soit sonko dañ leen fal pour ñu liggéeyal askan wi parce que suñuy bindaan la ñu ñun ñoo leen fal donc ñu ngi leen di xaar ci côté boobu ñu def un bilan gis nga ku gis nga ku bëgg a def bilan sëñ mm. Fallou mm. doy déglu yeneen kàddu yi même si boo ko dégluwee da nga koy jël dans le sens positif gis nga ku lay critiquer da ngay jëlee positivement les critiques c'est ça un régime c'est ça un un un un un dirigeant mm. un dirigeant du ñëpp ñoo lay bëgg ça ça aussi xam nga dem ba la fii ba jox la exemple yonent bi nee naa la ba muy ñëw d'initier les gens sur l'islam mais amna ñu taxaw face à lui ne ko du fi dalé ah, ne ko li ngay wax ni amul amul donc lolu c'est ça le rôle d'un dirigeant gis nga kuy diriger fo nga fo nga nga xaar ñi ñi ñi bokku ci yow ñu and ak yow ak ño xam tamit duñu and ak yow dañ lay critiquer légui critique yooyu ngay jël jël ko ci sens positif nga mëna am orientation bu baax gis nga opposition lélé yow di nga yaakaar ni li ngay def ni baax na ñoom ñu jàppale la xam nga lan la ñuy bu ñu la critiqué ne la attention yaa ngi wàcc yoon nga dema dema dem ba xam ni que opposition bi moo moo moo moo commandé su moo wax dëgg nga daal di jël loolu yëpp mm. defaraat sa toogaay jaadi jëla bu fekkee wàcc nga raay bi nga daal di jubluwaat ci raay bi teguwaat ci raay bi. loolu mooy opposition alors c'est que exactement mi ngi noonu euh, par rapport ak wàllu wóor mais je rappelle que yéen seen émission ba tey li nga xam nekk moo di le truc de maintenant di leen jéglu bu baax baax encore une fois si li nga xam que moo di euh, euh, jottali bi maanaam si li nga xam que moo di son bi exactement donc mi ngi noonu ki nga xam que moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye am na li nga xam que moo di 100 jours au pouvoir maanaam téeméeri fan yi nga xam ni itam am na ko fii entre temps lu bëri na xew na fi dina si daal di ñëwaat si nu mu gën a yaatoo ñëwaat

lu mën a toll ni suede li nga xam nekk moo rapport ginnaaw rek ba ministre de la justice ki nga xamné nekk modi Ousmane Diagne euh, génnee dal di def ay assurance allant dans sens que ni den def sen kim katan ñax yooyu da li nga xam nekk moo rapport baña dal di nul way itam ñax xoy da li nga xam nekk moo rapport aussi kep ki nga xam ni itam laal nga ci nga dal di wusi acte yi nga xam ni itam posé nako ci si allant dans sens nga jàppe ni itam rapport yu nu mel euh, mi ngi aji won jëmele ci li nga xam nekk moo gestion bu ki nga xamné nekk modi Macky Sall way itam ak na nga xam ni itam noonu la concrètement alors Arfan euh, dañuy def tey benn li nga xam que modi euh, un peu si les décisions de Bassirou Diomaye pendant ces 100 jours la publication des rapports Arfan mu nekk loo xam